Moy APR moy National Youth Mobiliser amna fi Adja jata mo xamné mo moy Women's Mobiliser National Women's Mobiliser amna fi Deputy National Women's Mobiliser bi tamit ah, di Adja Fatou Ba ah, di len wax ne ah, maa ngi leen dara ci jotay bi ma commencé si yow rek Lord Mayor wax ñu tay xamnañ né ne appeli président bi mo ñu fi indi lan mo waral loolu aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmanirahim jërëjëf ay satu ah, li ñu fii si foog naa ni waruta umpa kenn dégg ñu ñëpp dégg nañ ci radio bi ak télévision bi président nañu li nañu ci bureau bi ci suma njiitaan ñu jóg ñu ñëw ñu meeg soone def nañ mutal nañ kaddu président loolu tax ñuy oote di oo ñëpp pour ñu génn si alxames ajuma bi samdi pour ñu dem dimbali président ci tool bi in fact tool bi du tooli président tooli Gambia la ndëkk li fa munti am pour Gambian si la moom lu mu jot a béy ci tool yooyu noonu ñun ñoo ko njëriñoo kon baax na pour tool bi ni mel right now ñun jógee nañ fa bu yaagut xam nañ ne toolu gerte gi fu mu nekk nii su fekkee bañuñ pour mu yaaxu bañ mu des ci suuf si moo ne ñu jóg ñu dimbaleyante ñu meeg soo ne ñu gasaat ko ñi nga xam ne mun nañoo for gerte ñu for gerte yi su ko defee ñu mun a am njëriñ bi tax ñu ñu ñu béy ko euh, président nag ñëpp xam nañ ne moom lu mu ekkati pour ñun ñoo tax ñun Gambian si ñun ñoo tax kon loolu daal ñu ngi appeal ci ñëpp. pour ñu génn si bàyyiñ ci kenn commencé ko ci région si already wax naa euh, regional governors yi yëpp pour ñoom it ñu try ñu make sure ñu yónnee si ay nit pour ñu ñëw dimbale ñu ci femmes si already wax naa ñoom ñëpp ñoom Gagny Touré Omar Kane euh, euh, gouverneur Lower River Dabo ak Sonko ki nga xam ne moo nekk North Bank kon ñun fu mu nekk ñu ngi oote wax naa vice tamit. Euh, vice président moom it pare na pour dugal ci loxoom fu mu nekk nii moom it joxe na directive pour make sure ne ñi nga xam ne ñu ngi ci civil service bi tamit te ñu bugg a ñëw forcé wuñ kenn koo xam ne bugga ngaa ñëw kera ñu ngi laa entertain in kanin pour ñu ñëw ñu dimbale yante because président suy dimbale euh, du seet kan la <laughs> moom lu mu am suy joxe Gambien la koo jox <laughs> du seet kii mooy diw kii mooy dële kile ma saani karta kile saani lu ma karta président duy seetee noonu moom suy joxee dafaa jox pour ñëpp so loolu tax ñu ngee oo ñëpp pour ñu génn si euh, provinces bi wax naa leen ne pour ñu ñëw su fekkee mun nañoo ñëw elect Tuesday alhamdulilah su fekkee mënuñoo ñëw elect Tuesday Friday latest dañ war a nekk kanin laay euh, ñi nekk fii nii tamit ñu ngee oo ñëpp pour ñu ajuma KM Banjul ak West Coast Region ah, West Region moom ñu ngi naa alxames dañ fa war a nekk ñoom ñooy host wan naa ko gouverneur bi pour ne alxames mu méeg soo ne gars yi def nañ mobilisation ne West Coast alxames dañ war a nekk ci tool bi ah, ajuma si ak Banjul dinañ leen fekk si den samedi ah, samedi dinañ bëgg a civil servants yi nga xam ne bëgg nañoo ñëw ñoom it ñu ñoo fekkale ñu foofu noonu noonu lañ ko tëralee waaye duma sori comme que maa ngi am suma yeneen naataango yu fi nekka uh-huh. te ñoom ku ci nekk am nañ ci wàll ba mu sëkk uh-huh. kon ñu may leen ñoom it chance su ko defee ñu wax si waaye nag leena rek dinaa ko ci teg uh-huh. kanin laay du tax du lekka tax ñuy wax su fekkee lekka la ku nekk soo demee di nga lekka naan suur loolu moom jarul ñu wax ko waaye transportation tamit alhamdulilah ñu ngi si négociation bi as ñu move on nañ leen wax fan la transport yi war a jël nit ñi waaye asad naa naa leen wax ne transport yi dinañ jógee ko KMC BCC ak West Coast Region Governors Headquarters ak di si bureau transportation si nañ fa nekka pour li war a transport nit ñi to governors house si tamit gouverneur yi seen euh, li fi nii dinañ fa am transport yi nga xam ne dina jógee ko ci gouverneur si seen areas pour ñu jógee ko foofu noonu mun a ñëw agsi fii nii kon dina daaneel suma kàddu fii ba ca kanam nga xam ne soo leen bëggee dina beneen façon yi leeraay pour mbir mi mhm. dinaa ko fi dinaa ko fi wax dina wax pour ñëpp dégg nga ko waaye ñu ngi oo ñëpp ñu ñëw ah. Euh, ma dem si père père euh, yaa nekk national youth mobilisation bi te gisoon nañ si tamxarit bi yur si demoon nañ génnoon nañ massively ñu dem si famille président bi euh, dimbale ko waaye taxut benn tey ñu ngi ootewaat pour nit ñi dellu foofu noonu lan nga amal yur si ak lan nga am pour wax gaa yi. waaw jërëjëf ñu ngi rafetlu jotaay bi di nuyu ñi nga xam ne yëpp ñoo ñoo toog waxtu bii nii di ñu seetaan mm. comme ni ko national mobilisation bi waxee Lord Mayor KMC. mooy ne euh, ñu ngi oo ñëpp pour ñu génn si si weekend bi comme ni mu ko waxee euh, li nga xam ne mooy KMC Banjul ak BCC ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ñu génn si pour ñu dem Kanilaay delluwaat dem continuer liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi fa nekka euh, comme noo ko waxee rek weekend bi passé ni demoon nañ julli fa yomal ashura bi ba pare demaat ci tool bi pour dem jàppale ji suñ boppa parce que jàppale wuñ président suñ boppa la ñoo jàppale comme ni ko euh, mobilise sa bi waxee ne scholarship si ak ndimbal yi nga xam ne mu ngi jógee si wàlli président di dem si euh, doom aadama yi you ñi nekk Gambia ak ñi nekkul Gambia sax yëpp si toolam yi la dee jógee kon da ngaa gis ne dafa am solo trop pour nit ñi saa yu nekk ñu jóg dem jàppale seen boppa foofu noonu comme nag noonu la demee jógee nañ fa waaye tool bi yaatu na liñ ji si gerte bari na bari na boo boo xam ne liñ biñ fa demee ak mbooloo mi ni mu takkoon ni mu am doole yëpp mënuñoo def li nga xam ne moom mooy li ñu war def pour yëpp jeex ci kaw loolu moo tax ñu réalise ne am na solo lool pour ñu delluwaat fa amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñun ñëpp ñu delluwaat fa ak force boo xam ne yaakaar naa ne suñ ko demee ba laal ko bu soobee yàlla su jéema sa tam li faa des lu ndaw laa nekka parce que def loolu sacrifice ko mu yaaxu loolu dafa war a ñaaw te comme ni ma ko waxee rek président Jammeh jàppaleem li moo jàppale askan bi ak ni moo dimbalee nit ñi surtout ndaw ñi lolu dafa don am solo lol so soo ñoo tok seetaan muy am yahu yahu parce que lolu su yahu ñun ñun la le ma ngi oté nak ñi nga xamné ñoy mobiliser si yëpp nekk si région si lu from Banjul KMC West Coast LRR CRR you know um not Bank ak URR uh, ne yu na mobilisation si nga xamné ne ñoo fa nekka nañ do di mobiliser sen youth as from today ba pare ñu lees ak ñi nga xam ne ñooy seen gouvernance yi pour affaire yi transportation pour leen a indi kanilaa yi fon naa national mobiliser bi wax na ko fi ne affaire yi lekka ak tëddukaay du nekk benn problème loolu moom mu woo kon those things ak yëfi transportation pour li nga xam ne mooy faciliter nit ñi pour ñu dem kanilaay over the weekend pour gis ne konka nañ you am gerte gi yëpp ak bépp liggéey boo xam ne am na fa oh. pour yëpp jeex ñu bañ yaaxu yaaxu am jërëjëf kom legi ñu dem ci ajande jata mi nga xamne moy national youth mobilizer bi uh, ajande national women mobilizer uh, bi mbeta jang JRS jang kasi kakacha ko wala mi ko wala kumandiro ti president jame minke puru uh, mole finti kata ala kunkol to min ko lebe kanilay kaje ko tiol min fita je e ikanatinya aɗa anndi ɓimɓe daƴan a yemmune sotof ka fo musole min ye lon ko itol ah, président jamel wote lon kola bake banko kan yo abaɗa ka aissatou mbe président fos fo mbe président fan contonna mbe lorɓe conton ni min be naata a ah, gouverneur west coast ñantanarale bare maalo mune yamuta yo national bureau min keta political bureau ti bi la silo muñenti wala la zomza ga fem fen ni alon ko be gambe jana dum APRC ti we manke APRC ti lafta kabirin commune lord me ya fu nyame kabirin koyna fo katon lafta mo be ji nyun kunkoto kar nyun kunko mo kunkulati awara ta wara nya minna kunko kungo jata bak bari lafta ñiŋ nena niŋ alla ye ke fo futata aramin so niŋ arjubo niŋ sibito niŋ dimaso lafita la wo kunko hani feŋ kaara tu je wo le ye a tinna n lafita naata jam bi ni lord mayo biro toya la aniŋ vice president toya la pour ŋa ñiŋ je ko gambia bee mume ye wuli ŋa taa ñaatili ñiŋ kunko la kunko kuŋo jaata ñaaña bari niŋ gambiya bee keta ka mm -hmm. ne ala sonta mba ñimin la ko katiyo fo ñimi ñami mhm. adun nga ñina hami ko fen fen ni alon ko moto min kalaf nimmin ye motol soto ɗum gambe ɗingol lo miti ɗuyito ko ilafta président jammela mhm. ilafta fenkol alim fu motola nalnatamo